waqaataloo te ñu xeexat man ña nga xamee ne hum nahaahum fekkoon na mu tàggee leen maanaam wax seenuk aji tinu way tinunya xatal xubaaru ba pënd ba sataxa dolli na bay na jabaanin diggante ab ragal wakanin ak jàmbaar wakamin jooju wakami yin moo ciy cosaan bañ koy min xayri hati wa kami wa kami jooje mom kam ñaata mooy cey ciosan mune nak sahaba yi dañu dal di taxaw temm temm ci xeex ak noonu yàlla yooyu nga xamne yonante bi yalla baxé won nako xamal ko ba xara bi mujj ak ñi nga xamé ne ci kilifa yi nara daanu de kenn ku ni sax yalla xamal ko te muy daanoo ko mu daal koy wax fa saasay saasa njëkk sax loolay am kon nag saxaaba yi góor yàlla yi ñu ngi noonu di jàmmaarloog noonu yàlla yooyee bu mujj nee na pënd bi yëkkatiku yëkkatiku ci seen diggante ñoom ñi nga xam ne ñooy soldaari yàlla yi te ñeme ñeme baraw gaynde pënd gi yëkkatiku seen digganteeg ñu ragal ñooñee ñu nasax ñooñee te ma topp dëgmal si minasana sama ay bàyyi ko ci asamaan xaylun ay fas wa jundun akub kuréel azuma yooyu màgg nañ ñoom ñaar ila raisi kurama jëm ci kilifa way tedd ña di shiran mbir muy bi wakamin ci dul njàqare amat dëxoo tëbb na ko rabbul anaami borom mbindeef fi bi jun di am laakin ci kuréelub ay malaaka xaywaamin ngir way màgg li adadin ngir baril ab lim laa li lihaamin du ngir ñu xeex xeexuk malaaka dëgg-dëgg ar daw alak nañu dawit taxabuni waroom réylu ga yàlla dafa tëdd yonante bi ak gaayam ay malaaka yu and seen ñoom ci xeex bi yàlla tàmbalee ci junni di dolli nag ba ci juróomi junni malaaka yu ya ba ñu ñëw dañoo war ci ay fas yu bule bule bokkut ak bula ñoo malaaka yi ñu am ay kaala yu weex wala ay kaala yu puur kaala ya yooru ca seeni gannaaw yàlla nag daa yebal malaaka yooyu ngir dalal xoli jullit ñi du ngir malaaka yi xeex dëgg-dëgg xeexub malaaka ndax doole menn malaaka rek xajul ci ñooñee ci misaal jibril dong ba ko yàlla digalee alak niti waa loot dana buréet seeni dëkkukaay ba ca kaw mu xalab ko la féete woon kaw féete suuf mel ne yow mu sëgg far ab dërëm siggi xool ba xam fa féete kaw ca dërëm ba nga xalat nag dërëm ba mu daanu fa féete woon kaw féete suuf kon malaaka yi teew ga ñu teew foofee ca badar du ngir xeex dëgg-dëgg xeexub malaaka dañoo teew mel ne ay soldaar nit xeex xeexub nit baril limu sahaba ya dalal seeni xel ni suñu borom waxe ni iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin moy bamu len mu ben tëbbee bamu junni ba ci jàllee ba nak junni nag wax ci ali imran ne iz taqulu lil muminin alan yakfiyakum أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يوم جدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ca dëgg dëgg jàpp ñu woon ne xeex dana am yonante bi itam woote wutoon ne nan dem ca xare ba woote dogu li am daal mooy yonante bi dégg na ne Abu Sufyaan ànd naag gëléem yu bari yóbbaale alal ju bari ñu wuti ay marchandise nañ ko daan wutee te mu ngi ñëw nag ànd ak alal ju bari joojee ak gëlëm yu bari yooyee te nit ñum àndal moom wuñu nit ñu néew la àndal mu ne nag saxaaba yi nan dem kari leen jot ca alal joojee def ko ci yoonu yàlla nga xam ne dañuy jot ñoom yonante bee ki gaayam ñetti téeméer rek nangam rek lañu te yaari fas dong moo ci nekkoon fasu miqdaat ak fasu Zubair, ba tey gëleen ya yoroon taxu bari dañu doon awante ñett ñu ne ñooy awante genn gëleem bu kee waree ba yàgg wàcc keneen war abu sufyaan ma nga xamee ne nag moo jiite woon jëgg moomee ba mu yëgee ngën ji mbindeef mi ngi ànd ak ay gaayam dëgg koo kar moob alal jaag ñam àndal dafa daal yónnee ci waa màkk yëgal leen ne leen muhammad jóg na kat ànd ak gaayam ñi ngi may kar daal leen di ñëw li seen alal ji bari ji lu ngeen jàppoon rek bàyyi leen ko lu ngeen man dal leen koy def waa màkk itam daal di waaj waajtaayu xare wu mat a mat mat nañ junni mbaa ñu ëpp ko yàlla dogal nag far Abu Sufyaan moom raw yéeg gëléem yaag marchandise ma waa màkk nañ ñoom dogu rekk ci taseeg Muhammad xeex ak moom ba yàlla dogal nag xare boobu am ca na ko yàlla dogale sunu borom dafa namoon yonante bi ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ane, sahabaam amee jihad, jihaad jaloreja, itam jalo reja nde bu sooboon yalla ñepp gëm ko bu ko sooboon it malaaka yamu yabal mu wax leen rek ñu far benn yoon yéefar ya ñu jeex tàkk yonent bi noppalu moog ay gaayam waaye nag yàlla lii moo di ak nammeelam noona rek la doxale dafa am nag wuute gu rëy rëy ci ndax malaaka yi bañ wàccee ca xare badar ba xeex nañu am xeexuñu am ñu wax ne malaaka yi fu ñu mën di dem ci xare yonent bi itam daawuñu xeex waaye foofu ci badar moom ca dëgg-dëgg xex nañu ñu wax ne nag malaaka yi mësuñoo xeex ci benn barab ci xare yonante bi ba ci badar xeexuñu dañ cey boole indi ay tomb yu bare bari di ca leeral seeni tegtal waaye ibnu xabaas moom daa ànd ci ñu wax ne rek malaaka yi ca badar xeex nañu waaye man nga ne buñ xeexee itam dañoo xeex xeex mel ne rek xexu ñay ñew di leen dimbali ci manam xex bu melni xexu sahaba yoyé wa fihim nek na ci seen bir id waradu bañu roté moy bañu diké rek khaliluhu khalitam ba al mumajjadu kadi kuñ teddal jibrilu te moy jibril ni ama amul morom asanadu sang bu yëkati ku ba fawqa jawadin ci kaw aw naaru goor shay zamin wu aji guddu mu ne jibril mi xaritub ngeen ji def bok na ci malaka yo ya teewon badar waron naaru goor wu tuddu xay zoom li ñu wax na yonante yi ak nit yalla yi xam gi ñu xam yalla ak nañ koy ragale tax na yonante bi li ko yàlla xamalul lépp ci gañaay ak ndam lim koy defal ci xare bi teewul da doon liwaayu yàlla di ko ñaan di ko ñaan naa ko sunu boroom boo seetaanee kuréel su néew sii day ba ñu faagaagal leen amati ko la jaamu ci kaw suuf ba abubakar naa ko ñaan yi lu gi doyna yalla yàlla dana la may li nga bëgg may na la ko ba noppi boobee nag la yonante bi ne gàyyi maanaam xaw a nelaw tuuti rek naka muy yow nag ne abubakar bégala békk sin jibril mu amé kala gu buur japp ci la bi fasam nek digënté asamaan ak suuf bi ne bi mu jibril muy ñëw war ci façon woowee jibril da ko làqu as ndiir yonante bi ne ma gisaat ko ay moom jibril mel ne dafa taq tënd maanaam ku yëngatu ci lu ko ñor lool ba kanamam fundooñ bu fekkee ne ñëbut gémmiñam dafa xaw a ŋa boo xoolee bëñ ya bëñ ya mën ne non la ko jibril feeñ waté bi mu laxo as ndiif yonante bi abou bakkar jibril neena na ma boobee ngay ñaan rek la yalla nangu sag ñaan dal ma yebal man at ñima andal àndal abusir ya aba bakr هذا mutaammimun bi imamatin safraa آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على تناياه النقع النقع بشري تند يقول أتاك نصر الله إذ دعوته أخرجه البيهقي في الدلائل سرنجي وحنا كتا الميم يعني جاءوا لبدر وفيهم حين جيئتهم جبريله فوق حيزوم الذي هجم والنقع فوق الطنايا قائلا برضا حيزوم السارع وخير الخلق بعض رمى وسارع وتني جكنته تني قاونتو الى الكفاح جمتي خيخبة مع سيوه اندك جاسيه ورماه اقيجيه xubba salaahin ngir sopp ak yiw wa falaahin akuk texe xalfal imaami ci gannaaw ilimaan ba al azami ka gën a màgg mu ne ñu daal di gaawantu njëkkante jëm ci jàmmaarloog noon ya yore seeni jeesi ak seeni xeej topp ci gannaaw ilimaan ju màgg ji nga xam ne moo di ngën ji mbindeef ndax rek bëgg yàlla may leen defaru faw may leen texe faw faw